donc euh, Koudia Mat euh, ñëw indil ñu ama ñaaw du ma ci sori damay laajte ki nga xam ni mooy madame laajte euh, mu laajte ma lan mooy Koudia Mat ak lan mooy ama ñaaw. waaw parce que depuis tout bu ngeen seetloo maa ngi wax Koudia Mat alors que Koudia Mat la donc bu ngeen ñu mënee wax tout simplement lan mooy signification Koudia Mat ak li nga xamante ni mooy ama ñaaw pour ñi ñuy seetaan ngeen nuyoo ba pare. merci beaucoup déjà pour euh, invitation bi. donc ñu ngi nuyu Sénégal gi yëpp euh, plus particulièrement waa Casamance vu que Casamance la ñu la ñu jógee donc euh, voilà euh, Koudiamat ça veut dire tout simplement Joola mais comme on est deux on dit ku jamaat en pluriel bu dee man kese la woon a jamaat laay wax. Hmm. voilà a jamaat mooy benn joola waaw. bu dee ku jamaat mooy les joola tout à fait tout à on a pris deux mois a ku jamaat a jamaat. a jamaat amañaaw tout à mooy seet. seet ay waay yàlla nga nekk amañaaw waay. <laughs> ay waay oh, kii bëgg naa mu ay waay xale bi yàlla ay. yow yow yow nekk sama yow laa magale sama bopp. pour sénégalais yëpp bàyyi ci xel. yàlla na nga nekk ama ñaaw avant non stress sa magale sama bopp m que bu ma nekkee ama ñaaw mooy seet. yàlla na nga nekk ama ñaaw nga dem. ay waay ay Cissé mi li ko doon ba jàmm. Cissé damaa tiit ci moom. <laughs> ama ñaaw mooy seet. mooy seet waaw mhm. donc histoire bi mooy way seet. voilà tout à fait euh, ay euh, conseil la pour seet bi. et tout je pense man dégg nga. wala wala muur ko mu war dem. dugg lépp loo xam ne lu ñuy def ci cérémonie euh, conseil pour seet bi wax ko jigéen da ngay muñ des trucs comme ça le tralala moom la ñu wax fii en fait. kan moo la yab dañu lay yab say waajur wala kii nga àndal way moo la yab. wala kan moo la yab wala yow yaay yab. enfin conseil yi ngay wax yab. waaw voilà donc euh, ku jigéen ku jigéen kii euh, ay bàjjenam. enfin ñun suñu suñu village donc euh, Afiñam après ku góor ki aussi ay oncle am voilà. donc ñoo koy ñoo koy conseillé. am na solo donc culture casamançaise ngeen euh, tënk li nga xam ne ne mooy way bi. à travers les images macha allah on a vu que c' est magnifique j' ou tout ça. tout à Ziguinchor euh, est dans un village qui s' appelle euh, Djilakoun. ah oui. yéen ñaari way bi wala yow yaay way moom mu yor instrument. alors euh, la première fois ñu naan ma man way moom mu instrument parce que d' moom la ñu xam euh, Casamance moom la ñu xam man xamuñu ma vu que je vis en Suisse donc euh, d'habitude dañuy ne dama koy aawu. Hmm. voilà mais euh, on forme un groupe en fait. c'est okay. c'est un groupe lui c'est Big Mo le géant je vais laisser peut-être parler un tout petit Bien peu. <laughs> voilà. Diomane. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp. waaw di bëggee ñëpp. waaw comme li ma nu mu ko waxee sànq c' est un groupe qui ku là qui s' appelle Kujamaat. Kujamaat waaw Isis Kuito et Bigmo le géant. waaw yàlla dafa def ñu euh, xamante def benn morceau euh, bu tudd Casamance après ñu gis ne pourquoi ne pas former un groupe man maa ko ko proposé euh, mu nangu groupe bi judd quoi. Mm-hmm. am na solo donc ngeen ànd ci groupe bi depuis ngeen ànd ba tey ñaata son ngeen def. Euh, ñu ngi si suñu troisième morceau bu pare ba morceau yu pare on trois. mais ñu ngi si yeneen projet aussi. ok mhm. ok donc da ngeen di ànd euh, di def ay concert rek yooyu parce que nee na Casamance yow la ñu xam donc ànd ngeen bitim réew wala boobu ba tey yéen a ngi nekk seen di def nànk par nànk. step by step loolu wax en anglais. waaw bon groupe bi ba muy juddu yàggul yàgg na yàggul euh, deux ans lay toll si je me trompe waaw moom elle Suisse. man fii laa def sama carrière solo ba ba ñu yàlla boolee. Mhm. waaw donc euh, euh, tournée yi euh, Casamance lañ ko démarré gum parce que tout récemment la ñuy jógee boucler suñu tournée. Mhm. di waajal yeneen aussi incha allah. am na solo damay laaj question bi ki nga xamante ni mooy ala daam naka ngeen def ba yow nga nekk Suisse moom mu basé wu fii ngeen dem ba def benn duo. WhatsApp <laughs> ah, nga cee mën a duo. <laughs> waaw euh, man je suis infirmière. da ngay faj euh, yaa ngi dégg loolu. Euh, salle d'opération ay waa Johnson <laughs> Johnson bi waa yow mi yow naka jekk ah may xool naan kii moom a ñaq man maa ngi lay xool xàmmee naan kii moom a ñàkk Johnson Johnson bi man yow kii mbaa ñàkk ngeen. ñàkk ngeen. <laughs> ñàkkul ngeen mbaa ñàkk ngeen. <laughs> ah infirmière bi ñàkkoo ko infirmière la ñàkkoo ah, <laughs> ko. ah lii day na war li yow ñun sax ñàkku nañ ah, ah, yow nga mm. nekk Suisse moom mu nekk fii naka ngeen def ba def li nga man xaw ma ko woon di tout donc un jour dama jóge génn salle d'opération nekk ci sama oto di ñibbi après sama frère envoyé ma benn son bu tudd Fikis donc bi mu def ak beneen waay bu tudd euh, jeune Akon Junior et euh, du coup ma déglu son bi ba ma egg sama kër et c'est c'était tellement dansant je, je me suis je me suis retrouvée là-dedans vu que Joola là je parle Joola et c'était toute une fierté pour moi dégg euh, son boobu noonu. fekk na yow boobu yaa ngi way. Euh, je non. enfin wëyoon naa balaa may dem Suisse ba may am 15 mhm. ans 16 maa ngi woon ci père Ouza Diallo. ah d'accord voilà non non <laughs> pas du tout après loolu la waaw donc moo ma jàngal looy vraiment maa ngi koy saluer de passage surtout voilà et 2019 euh, bu ma demee Suisse dama arrêté carrément. 2019 bi ma déggee son bi as ah, ça m'a ça m'a aussi donné envie mais avant ça bon ñëwoon naa fi vacances j'ai un ami qui s'appelle Milkman euh, dafa am euh, home studio et euh, ma dem këram dafa ñaari son yoo xam ne c'est juste quelque chose comme ça que j'ai gardé pour moi <laughs> surtout il faut pas écouter ah, ah. et ben je l'ai appelé j'ai demandé à le rencontrer mhm. et sama frère présenté ma ko je l'ai proposé ñu def son donc euh, mooy son Casamance bi. Mhm. et ça fait un boom partout. Ouais. Bah, maintenant, euh, je pense que teg nañ ko même euh, sur TFM aussi la ah, Casamance parce que c'est un son boo xam ne euh, dafa dafa yee fierté wu Casase yëpp. Mhm, surtout daf ci wax lu bëri genre guerre bi amoon nit ñi tiitoon nañu ragal nañu mais léegi loolu jeex na parce que jàmm la ñu bëgg aussi. te moom la ñuy ñaan voilà vraiment da gis benn ville bu riche. Ah, ci lépp lépp lépp euh, vraiment la ñu fay wax yëpp ñun gis ñu ko fa wax dëgg yàlla waaw voilà kon peut-être amul woon fi nga xam ne ñun foofu lañu nekk mais c'est une ville euh, qu'on a aimé quoi wax dëgg yàlla euh, neex na riche na quoi vraiment am na mm-hmm. maa ngi turu village bi laay fàtte mais am na chaque année foo xam ne dama fa daan dem abat pour juste pour découverte et tout ah, mais pour te montrer que ba noppi fàtte <laughs> tout village bi non parce que période boobu j'étais terrifiée parce que période Famboni xaw ma xaw na xam ngeen ko ah, période lël la lël boobu day am femme bu ne benn esprit buy génn donc waa Casamance waa Ziguinchor yëpp ma leen di nuyu ci loolu aussi bu baax a baax a baax merci kontaan nañu donc wax leen ñu lan mooy projet yi aussi alors maa ngi bàyyi parce que du ma monopoliser parole bi quand même ndeysaan ak am xel waaw ak am xel waaw projet yi euh, comme ni ko gars yi di waxee rek kuy kuy yoot du sëqat waaw mais ñu ngi si en tout cas mm-hmm. euh, ñu ngi si liggéey bi parce que musique moom liggéey la laaj. Uh-huh. Euh, donc ñu ngi waajal ay affaire très bientôt dinañu gën a dévoiler affaire yi bu si liggéey bu ñu avancé gën a si liggéey bi waaw ñu ngi waajal lépp lu artiste di rêver daal. Uh-huh. waaw tey am ngeen euh, foo xam ne mën ngeen ñu fa orienté seen chaîne YouTube. wala foo xam ne bu ñu fa demee fekk fa seen ay information wala actualité yi. waaw si YouTube vidéo yeeg yëpp quoi. waaw si YouTube bi boo tapee ku jamaat espace TV. Euh, di nga am suñu chaîne YouTube waaw TV waaw Kujamat TV euh, sur Facebook boo tappee tapee Kujamat page officielle euh, di nga mun a am accès si suñuy œuvre am na solo sant nañ leen gërëm nañ leen bu baax bàyyi la nga wax sa mot de la fin après jox ajamaat bi moom tamit mu wax mot de la fin <laughs> waaw d'abord di leen jaajëfal si opportunité bu ngeen ñu may di bëggee ñëpp ñu ñuy déglu di ñaanal ñëpp jàmm merci beaucoup ayca ayca ana ajamaat bi. ajamaat bi day dellu suuf wala ci kanam. alors ça dépend euh, bi day dellu. ça dépend rek waaw day dellu. <laughs> yàlla baax na daal. en tout cas merci beaucoup. et moi j'ai juste euh, benn requête bu ma bëgg def. Mhm. parce que Casamance bëri na ay artistes torop mais duñu leen faral di gis ci télé yi et on se sent un tout petit peu orphelin ci côté boobu. yaa y a beaucoup beaucoup yoo xam ne ils ont beaucoup de talent. mais ils ont pas d'aide et puis amuñu accès ci euh, ci télé yi ak yooyu mm-hmm. léegi yéen <laughs> ubbi leen buntu bi rek. <laughs> ubbi nañ ko xam nga ñu dem Casamance. mais ñoom bés bu ñëwee fii incha allah dinañ dalal. waaw <laughs> seen kër la comme ni ñu koy waxee seetu waa Sénégal. Ah euh, yëpp la donc fii seen kër la comme ni ngeen doxee ba yegg si. Mm-hmm. keneen ku dox ba yegg si ñu benn buntu. Euh, ubbi nañ ko ñëppay ñëw dugg en tout cas kontaan nañu ci yéen. merci beaucoup dalal bi nga xam ni dalal nañ leen. merci donc euh, di ñaan ngeen bàyyi xel ci corona gi bu baax a baax ndax infirmière bi nee na vacciné gul vacciné wu leen dem euh, ñu aarante activités yi mën parce que yéen tamit dafa bokk ci loo xam daf leen dundal concert yi commencé waat mhm. activités yi commencé waat ñëpp di jouer ak yooyu am na ci solo ci laay doxee fàttali leen seen petit gallé prime 4 waaw prime 4 aba ce soir lay doon enregistrement bi nga xam ne fii ci biir cosaan lay doon nee naa la aba prime 4 bi dina xaw a euh, sensible tuuti sama côté parce que élimination la keroog xaw nañu repêché ñu bëri et tey moom xam naa ni